Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw bi nga xam ne nag moom ay awakaam doon nañ ko sàkkul li nga xam ne moo di liberté provisoire ñu fàttali leen ni Cheikh Bara Ndiaye boobaak léegi mi ngi ci kaso bi léegi mu yàgg fa lool ni ki fan yi sax yéen a ngi doon dégg ginnaaw bi nga xam ne ay awakaam doon nañ koo sàkkul li nga xam ni moo di liberté provisoire waaye siis bi daf ko ko bañal waaye Cheikh Bara Ndiaye daal bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaayam li nga xam le mooy moom mi ngi sant bu baax a baax ki nga xamante nii moo di Serigne Abdou samat moom Serigne euh, bu moom daal moom Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne ni gis na taxawaayu kilifa gi bu baax a baax a baax ci jafe yi nga xam ni mi ngi nekk di ko euh, dund nii moom Serigne Abdou samat moom Serigne Souhaïbou moom Cheikh Bara Ndiaye moo koy sant ak gërëm gis ni daal jafe-jafe yi nga xam ni euh, nekk na ci nii mi ngi ko ciy soutenir bu baax a baax a baax ñu koy ñaanal mu génn fa mu nekk ak jàmm Cheikh Bara Ndiaye ndax. société bi euh, namu nañ ko ci chronique yi am solo yi nga xam ne mi ngi ko daan def ñu fàttali leen nag moom euh, ay okaam doon nañ ko sàkkul liberté provisoire waaye juge bi daf ko ko bañal ñu ñaan rek Cheikh Bara Ndiaye mu génn fa mu nekk balaa yàgg dara dellu ci ak njabootam.